fekk lepp baax kon lu mo fi def suma ma fekk lepp jaar yoon kon lu mo fi def sama tank bi. Fuma ko tek rek fuy metti la ko tek pour fut fa lu ma ko fa safa kuma gisul kuma gisul dama japp sa lépp baax na man li ma tax a jóg mooy fajaat li may faj mooy lan mooy naqaru nit ñi naqaru ñi mooy lan ñun am naqar ci politique man loolu ma tax a jóg ku am naqar ci sa biir kër danaa tax li ma ci ku am naqar ci sa doxalin diine danaa taxaw waaye yëfi njaboot ak yëfi politique ci laay taxaw ci laay dox ci laa bëgg a dem seen docteur. kon may wax ñaar ñii ma leen di wax ñi nga xam ne danoo yaakaar ci ñoom te nu yor war a def te defuñu nan xam ne man Ousmane jox fu ma teg sama tànk rek fuy métti la kon nanu gestu ñoom ma leen koy a ñoom su dee waa président de la république ak ñi mu àndal ak gouvernement man fu ma teg sama tànk rek xamal ni sociale nga fa bàyyi boo ngeen jaar ci ginnaaw faj ko message boobu laa leen di wax beneen bi nga xam ne moom moral politique fii ci dëkk bi ñu koy jox lu ne muy Idrissa Seck na xam ne fu ma jaar rek aw nakaru politique la fa bay man kon fofu lay jaar di ko faj tala Talla le ta de la ville de Thiès maniko dina bot mbotay Thiès yeb muni man buma boté mom roganti kon yeen ñi mu war a ci ngeen bok kon fuma tek sama tank rek ñi mu war a dama leen wax nak lu tax ngeen war a ànd ak man ak Talla Sylla ak waa askan wi mooy yéen ñii ndax dafa am ñett ndax boo nekkee ci ci ñu war a tànn yow boo sampee sa ndënd war ngaa wax askan wi war a tànn lan moo la wuutaleeg ñeneen ñi laaj li li wuutale waxuñu leen ñoo leen ëpp xam-xam waxuñu leen ñoo leen ëpp alal waxuñu leen ñu leen ëpp euh, euh, daraja ñun li ñu xam mooy ñun dañ leen a gën a wóor ñun ñoo gën a wóor gaa ñi ndaxte ñi fi nekk Benno Bokk Yaakaar joxoon ngeen leen ay député ci 2012 jox leen ay ministre gisu leen ci seen bopp kon tey jii suñ ñëwaatee di leen laaj ñoom Benno Bokk Yaakaar jox leen de loolu du xel mënu koo nangu la leen joxoon 2012 joxoon leen ko ci leneen ñu ne da ngeen ñuy dooleel pour ñu am majorité bala may dee ñu naan majorité écrasante moo bi dafa ñaaw écrasé am majorité écrasante terme yooyu dafa ñaaw kon sa intention yow yow yow mouvement présidentiel bi yow mi koy wax je veux une euh, une majorité écrasante xoolal ma loolu majorité majorité rek ci askan yi la wara a nak nag am na ñeneen ño xamni dañu wax ni ñom ñoy manko watu Sénégal mais yeen bu len fàtte ni ñom manko googu parti politique ya fa nekkon ñom ngeen fa jëlee tek fi Macky Sall ñu taxaw fee dañuy manko est-ce que manko wuñu pour revanche yeet est-ce que manko wuñu pour xeex nguur pour bolaké est-ce que nguur laaju leen ma ñoom ñi nga xam da nga leen a jox est-ce que laaju ñu pour utiliser force yi nga leen di jox pour 2019 mu neex leen mu naqare ñu weñ seeni loxo daaneel taxawaat te bu boobaa même bu ngeen waxee 2019 da ngeen di contre nguur gi fi nekk daaneel président bi fi nekk président bi bu fekkee ne moo am majorité assemblée nationale moom dina ko wëlbatiku contrat ko président ba ngeen di fal 2019. kon nag loolu dafa jar bàyyi xel moo tax ñun nag coow li nekk Sénégal. ñu naan ay ëppante doole ay xéxante ay di lever immunité parlementaire jambour ay nan ki dafa def ni dafa ëpp doole yoon la andal kenn rek ay atté nak ñi ora a nguur ak opposition kenn rek la may askan wi su nguur a def naka sulul nonu opposition di wax wala muy def du comporté wulul nonu kenn ko mëna atté ñom ñaa ñi di teul teul te réew mi jàmm la bëgg kon ki mëna défar moy askan wi askan wi moy kan mooy ñu mel ni Ousmane Diop mi ngeen wax fii ay qualité askan wi mooy ku mel ni Talla Sylla bi ngeen wax ay qualité askan wi mooy ñu mel ni Serigne Saliou Bousso mi nga xam ni moo ni eh, ci nga askanu soxna Jaara Bousso mu tedd mi lan. mi la xamante ni mi nga xamante ni nii ñoom ñooy soxna may mu ne Dieng mi nga xam ne tey bis li taxaw ci Thiès ak ci Sénégal ci wàllu jigéen mooy ci xar tànkam. ñu mel ni ay imam yu baax ñu mel ni ay homme d'église yu baax. ñu mel ni ay sëriñ su baax ñoon ñooy askan wi parce que ci askanu lañ nekk kon looloo tax na ñu ñuy créer liste askan wi pour dem ci ànd ci ak yéen kon askan wi moo war a atte xiiroo bee ŋaayoo bi am ci diggante opposition ak pouvoir kon nag su askan wi amee majorité ci assemblée nationale yaakaar naa ne ñun li ñu war a def dafa leer kon na nit ñi xalaat nee naa la yéen waa Thiès fii la war a njëkk a commencé parce que la bataille de Thiès aura lieu la bataille politique xeexu politique bi xeexu politique bi dafa am Thiès li muy amee mooy ki ngeen daan jox Thiès mu diko jité say lu ko ko joxé mu jël ko jox ko kenen lu ñu jox Idriss sek jox nako jatra lolu amna wala amul. amna na moom Ousmane dou waxu lu dëkk. waaw Idriss sek jox nañ ko conseil départemental mu jox ko jatra lolu amna wala amul. amul kon benen bi ci dess moy talisi la da ngeen ko jox mu téye ko. waaw waaw. jox mu téye ko. Talla Sylla gis ngeen ko seen i dëj ak seen i ngénte ak seen i jàng. Idriss Seck gis leen ko ci néngé gis leen ko ci dëj bi seen ci jàng. kon man waxuma lu dul dëgg li ma wax dafa am. léegi nag bu Talla Sylla ni waa Thiès fan leen ma ma dem liggéey assemblée nationale est-ce que xel dafa war a mën a nangu ndax xel dafa war a mën a nangu ki la jaale si ki la ndokkeel sa bisu ngénte ak ki nga xam ne moo la ñëwal sa njàngale ak ki teewal say doom ak ki dimbal askanu Thiès. nga xam da nga ko joxee gisoo ko léegi nag ndax yéen da ngeen a bëgg xaar gàcceel nga naan Idriss Seck buñ ko waa Thiès ay jaam lan ki ngeen jox gisu leen ko ki ngeen jox gisu leen ko ki nga bëgg mu defal leen gisu leen ko léegi kooku bu fekkente ni yéen dem ngeen moon ko ginnaaw moom bu leen waxee du safe léegi nag ki nga xam dalaa jaale si ki nga xam ni dafa ñëw dëkk ak yow bokk yow sa nakat muy taale si la léegi yéen bu leen laajee le ñëw jox leen ma assemblée national ngeen voté ko. moom moo ëpp solo léegi bu ngeen ko votelul est-ce que xaj ngeen ci gàcce googu yow ñëw nga jaale si ma ñëw nga samay jàng ñëw nga ci sama bis sargal nga ma sama meer mi mi ngi dox toog nga si sama dëkk léegi man su ma la néewalee doole bu ëllëgee nan laa lay xoole ah. léegi yéen ngeen am gàcce ci kanamu Talla Sylla ak ngeen am gàcce ci kanam Idy Seck lan la askan wi wala taamu. Ah. moom mooy fi gis moo leen teem mooy bokk sa naqar loolu xel loolu la war a mën a nangu. kon nag ñu bàyyi xel ci loolu. bu eh, ñu eh. def ay farfarloo. mbir mi du affaire parti mbir mi du affaire parti politique. mbir mi affaire situation la fi ñu la. ndaxte mbir mi taal boo taal mu taw a tàkk côté bu ne nga koy ubbee yéen waa Thiès rêve ngeen am président bu ne rêve ngeen am député bu ne ngeen taal Idrissa Seck tàkkul ngeen taalaat tàkkul ngeen taalaat tàkkul ta taal taale si la moo gën a gaaw taal Idrissa Seck li ngeen ko jox lépp li ngeen ko jox yëpp bu ngeen joxee taale si la bu ndaw bi rek mu romb fii Thiès romb fii. wallaahi. ni ngeen sonal Idrissa Seck ba pare dem ba tay billahi ci 2017 bii bu ngeen ko taaleel xam nga waa Thiès ñi ngi naan ñi ngi door a am maire. waa Sénégal dina ne ñi ngi door a am président assemblée nationale. way kon ñun ñii danoo war a am majorité à l' assemblée nationale askan wi. du ngeen jël di jox benn wala ngeen di jox wala ngeen jox nit am ñu manko loolu dafa war a leer su askan wi dee laaj ña mànkoo di laaj ña bennoo di laaj askan wee war a am kon ñu jàpp ni war a inscrire yi te voté massivement li suufal askan wi nanu gëm xamuñu ku ca nekk ku askan wi la rek nañ ko joxe loolu vote automatique la war a doon ku ñëw ci yéen indi leen ay teraanga jël leen teraanga teraanga kenn du ko delloo ku ñëw ni salaamaaleykum maaleykum salaam ndax lool la ñu yare xulloowuñu xastewuñu jéppuñu kenn tey jii moo fi nekkoon député du ma nekk député Thiès doom député Sénégal gépp lay doon su ma fi nekkoon ministre du ma nekk député ministre kenn ministre Sénégal gépp lay doon su ma fi nekkee maire du ma nekk nii maire localité ba ma nekk lay doon man li ma yittee tey mooy yee leen yëkkati seen niveau politique ba ku ñëwul ku yoru seen numéro du leen composé man ñëwuma ñi leen fallee ma pour ma am oto bu ma dawal fallee ma ngir ma am kër gu ma dëkk sallee ma pour ma joxe àddiya man lu may joxe damaa bëgg muy lew lu ñëpp bokk nga jël ko jox ko sa njaboot loolu musiba la nit day liggéey di joxe da ngay liggéey di jox addi sërite boo joxe day bala man nag tey dama fee ñëw li ma leen indil joxuma leen financement man duma financé kenn mayewuma ndax ku ma ñaan ma la ma may la dama fee ñëw tukki woon ba ñëw su ma ñëwee dama indi sërite sërite laa leen indi li ma leen di jox ab sërite la te kuy joxe sërite nag dangaa ñëw ci askan wi pour fasanteeg ñun kóllëre. ndax bu ngeen ma ñaanee ma may leen su ëllëgee bu ngeen ma gisee déet ma déet la ma ñaan bu ma gisul déet la ma ñaan su ma leen demandé financement dama naan lii laa leen mën a financé dem ngeen ma dem. waaye damaa ñëw pour jox leen sëriñ fa seen yéete ak jàmm saa yu gisantee bu ma ko mënee jox leen sëriñ loolu kon kon nan xam ni nan xam ne tey adduna bépp. fu doomu sénégalais di yeewoo war naa tànn ay doomam tey ba fu nu nekk mën leen représenté dignement man damaa jóg pour ñu xal ndee ngeen hôpital yéen a ngi jooy ci hôpital yéen a ngi jooy ci école yéen a ngi jooy ci complexe sportif bi yéen a ngi jooy ci euh, uh-huh. yi léegi li gën a wóor mooy ñooñu am na ministre yu ko def gouvernement bi ko defuñu ko léegi gouvernement bi bu ko deful uh-huh. léegi bu ñëwee ñu ne tànn leen ay député yoo xam ci ñoom leen bokk uh-huh. kon du leen laaj man ni Ousmane Diop ak ñi ma àndal li ma bëgg moo ni ko gaañ wallahi tay xalé bu dañ xeex so doore ki taw di nangam dañ lay jël tëb mi ko waaw kon li ma bëgg ah, ah. ministre yi ak ñeneen ñeneen jëw leen man ak ñom taal ci la ni ko ci assemblée nationale way seen naqar dal kep kuy jigen ci Sénégal mm. kep kuy jigen ak association yi xalé ndaw yeeg yëpp lépp loola musa métti ci politique ci Sénégal ñun ñoo koy réglé ñooy ko gaañ assemblée. Sénégal daal li xew li xew mooy ko gaañ comme gars yi da leen jox ay bulletins ñu dem waroon liggéey ci dëkk bi defuñu ko ñun ñu koj leen assemblée kon daal Sénégal li xew mooy koj gaañ askan wi koj leen léegi askan yëpp la 30 nan dajante jël carte yi jox ko askan wi fal leen ba pare. ñu daal di dem taataan xalaat yi taataan ñu ñëw ci yéen ngeen jag ñu bàkk ñu ngeen mu ñu kon ngeen di ngemme mbëri ah ñu jóg ñu jóg dem taxaw ministre bu fa teew soo fa waxee waxi kasaw kasaw ñu lijjanti koog yow. su boobaa yéen ñi askan wi da leen invité ngeen toog ca kaw. fa nu leen réservé ci assemblée. ministre bi ñu taxaw di ko posé question mu loolu ñu yéen ngeen di dégg bu weddee ñu ko weddi gis doo gi comme ni koy xoolal fee. ngeen wax mu dégg. su mënuñu suñ ko ëppee suñ amee maturité nag bu ñëwee bu deful lu ñu dàq ko loolu affaire kon nag foofu la mbir mi nekk foofu ngeen ko teg foofu la léegi daal moom li ngeen xam mooy koñaate koj bi si leen dafa métti yëpp ne leen ko assemblée incha allah rabi jërë ngeen jëf dañu bëgg rek mooy koo xam ne kii day zigzag day dem di sàcc di indi day def yu kii mais yow ni nga jubee xaw ma gaañu kii la parce que yow da nga jub te ñoom ñu ko jub loolu man loolu moom jaaxal normalement bu doon jigéen koo xam ne kii càggal na amul jëkkër bu la gisee am na jëkkër bu la gisee war na jàpp war na entrer mais tey Sénégal bëgguñu loolu tu comprends ça c'est des conseils que je mais normalement ñun de comme ni ko kii waxee nekkuñu derrière kenn amuñu benn contrat lii contrat social lii contrat moral rien mais ku la gis normalement war la jàpp war la naw moo tax vraiment li nga wax dëgg la man nag gën naa la ñëw parce que je sais xam naa tax la may mun a jee xam naa ko yooyu yëpp vraiment xam naa ne xam naa ne ay nit ñu dëggu lañu effectivement booy dañuy xeex mais xeex bi yaakaar naa du aboutir parce que Talla wax dëgg yàlla en tout cas ku dëgguwul moom mënoo ànd ak Talla c'est que ku dëggu la bëggul alul jàmbur lu mu am da koy joxe man ci sama kanam gis naa ko mu recevoir ay taalibe ci nga salle de conférence bi nekk ci bureau keroog dafa ñëw xam nga dañuy wax buur ayul dëgg yaa ay booy taalibe yi booy taalibe yi ba ñu def levée de couleur ba pare a dàq taalibe ne lasalee ko ba ci kaw ñetti sànni conférence am boobu xoolal accablé gos yi génne vingt francs ne lañ leen defal ndékki boykat bi ak seen bopp pour loolu la ni moom dëggu la maanaam yow aussi vraiment ci loolu la ñu vraiment parce que ni nga wane man tax na ma ñeme tax na ma ñeme la parce que vraiment wane ngeen ni yow xeebaloo kenn ak taalibe nga ay ñu ñu ak ñu dañu am yaakaar ni bu la yàlla dimbalee ba nga jot li nga bëgg askan wi dinañ ci gis seen bopp te loolu mooy am solo suñu yi amuñ solo waaye li fiite sa ginnaaw te lu gën a bul woon doo ñëwee ñu ñaanal rek nga dem comme niñ koy defee ñu gën a bari waaye nit dina àgg ci yow foo xam ni danga ko war a xamal ni ko lii ma la di lay wax lu ma gëm la te li ko waral moy da ngaa fàttaliku ci sunu yaakaar ko xamni li nga ko ci moom dafa am fu mu toll ci hmm. mu leer na jëmm joju fatte wo ko te ku yag am yaakaar ci mom hmm. ndagam na dimbu nga amul yaakaar ci mom te tolloon ci njàng rek mu dila la ñaanal non nga diko gis asama tay ji nga xamni da nga tollu ci am loy sakku mom mu nekkat fi ngay fàttali ko ñaanal bu la ñaanal hmm. loolu mom nañ ci am yaakaar bu baax a baax a baax te nag inna al fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa lépp lu ñuy sàkku ak ngëni lu mën doon yàlla nee na nekkul ci loxo ñun ci loxo ñun ñu la nekk te yàlla nee na maa koy jox képp ko ma sopp ak moo mën a sant nag am na ci ñu ji àgg ci station yoo xam ni yaakaaruñu woon dix ci ginnaaw ñu yegg waaye ana yàlla yàlla ñoo ngërëm rek ndax kër gi dafa gën téere ni wala masuul al marjuu nee na yàlla lu ko waay laaj yàlla am na nit koy ngay laaj lu mu amul waaye yàlla lu ko waay laaj yàlla am na nañ yoon yàlla nga yëgg fa nga jëm ci daraja rasulullah ah léegi nag dina booleeg suñu alfa mi rek nga xam ni moom fa tabarakallahu ah bari na lu gën a bari mm, sëriñ bi daf koy jox tabarakallahu Euh, ci wàllu autorité yeeg mel noonu tabarakallahu daan nañ loo xam ne ñoom nañu woo mu ma tabarakallahu moom it ah, di la ko gën a dénk rek ah fa tabarakallahu di la ko gën a dénk rek ah di la ñaanal yàlla waaw te xam ne day wax dëgg yàlla sa kaddu gii ak sa ñëw gii kilifa bu nekk ñëw fi waxtu bu nekk ñëw fi mbooloo mu nekk dajal nañ ko fi waaye eh, seen ñëw gi moom dama ci am yëg-yëg te dara warul ko ngir suñu rek loolu yàlla koy def. waaw loolu yàlla koy def waaw mu am fu ma toll lool mu neex ma lool am fu ma toll te dara warul ko loolu yàlla rek nag.